féewaloo am na ci biir syndicat enseignant yi unité syndicale ak solidarité bokkoon ci li ñu leen mënoon a ràññee jamono ji nag dafa mel ni salfaañe nañ ko politique bi moo fa jaar mu di situation bu yees bi nga xamante ne G7 moo ngi koy ñaawlu bu baax ñoom ñi nga xamante ne jamono ji SELS UDEN STELAS FC ak SYNES ñoo ca des. parce que suñu deful loolu pëccëxoo lay indi jaxasoo lay indi te yaakaar naa ne réew mi ñun ñëpp dañoo bëgg mu nekk ci jàmm parce que jàmm rek mooy mën a tax. ñu tabax ka jàmm rek mooy mën a tax ndongo daar yu ndaw yii ñu mën a am ñoom aussi chance bi ñu am ñun ba ñu tabax seen bopp jikko ak doxalin boo xam ne dina mën a tax bu subaa ñu mën a ŋànk réew mi jëmale ñi woo nag seen ay ñooñ ñu bañ a boole lii di syndicalisme ak politique enseignant yi di tàllal loxo autorités yi nag di leen ñaan ñi teggi leen loxo ndax rek élèves yi li bañ a cee gaañu ñun defuñu politique syndicat la ñuy def képp koo xam ne yaa ngi ci école bi ñu fekk la ci école bi def la lu la war def walla sa biir liggéey nga am jafe-jafe ak ñi nga xam ne ñoom la yàlla jox réew mi ñun syndicat yi dinañ la jàppale dinañ taxaw dinañ wax mais képp koo xam ne da nga sol sa mbubu politique dem defi politique su la jàppee si loolu vraiment na nga am ngoru bañ a indexer les syndicats mais nga dem si say naataango politique ñu réglé ko. nag ñu dindi ko ci seen ay payoor mbir yi nga xamante ne enseignant ngi tamit ñaawlu nañ ko syndicat yu SELS UDEN SNELAS FC ak SYENS bëgg nag ñi delloo leen ci nu mu gën a gaawee yooyu koppar ñuy dindi ci seeni ay payoor. Aminata Bachine Faye ñu jeexal